وبالمنى فجانا وبالنبي الأزمي هدانا الحمد لله الذي هدانا لذا وبالأمير قد فلانا محمد وقبل القرآن شكري إلى بيانا وزاد لليقين والبيان أمنني واب للإسلام وطيب الفؤاد والمكان لو كتابي ومع العصيان كما كفاني من أواب هل ابتليم يا مالك الأيانا يا من أتى والمزيانا وجدني ما قال لي قرانا يا من ينور بي الأسانا jël nuyoo bi jox la ko nga joxal nu ko xalif général sëriñ Mountakha Mbacké yàlla na yàgg lool waaye yàlla na wér yàlla defal ko jàmm moom mbokkam mi nga xame ni moo waral ngeen ñëw cheikh bu cheikh Sidil Maxtaar ñuy sant yàlla di julli ci yonent bi ndax njabootu xaadim rasool dem na fekk ziyaare ji njaboot cheikh bu Mamed Kunta loolu yaakaar naa ni ak mbégte la ñu lay ziyaar di la ñaanal yàlla yokk sa taxawaay ak njaboot gi nga àndal yépp ñu ngi di ziare taalibi yëpp di la xamal ni daal fii sa kër la waaw yaakaar naa ni kàddu gi sax mënoon naa bañ a wax ma jox ko sëñ bi rek mu daal di tàmbale waaw ndaxte benn la ndaxte lii moom du du dugguleet ñu ngi fàttaliku ngan gi nga xam ne sëñ ab laa defoon na ko fi ànd ak sëñ Abdou Aziz ñu fekk si sunu bàyyi Cheikh Sidi Yaxya Kunta fii ci Njaasaan waaw loolu yàgg na te it fàttali ko sama turandoo Cheikh bekkaay jóge na fi ci ndigaloo bu waajuram Cheikh bu mu amee Kounta fekk sang bu tedd bi ca njaareem ca kër gu mag te loolu yàgg na kon yaakaar naa diggante ñaari kër yi yonent bi rek leen boole ñëw ngeen nag ci kër yonent bi ñëw ngeen ci sëti yonent bi waaye njabootu Xaadim Rasuul ñëw noonu ci kër yonent bi yaakaar naa ne loolu mbégte la xaadimu rasul seen maam dundam lépp Seydina Muhammad la sunna la dund wane ko te yaakaar naa ni foo dem ci àdduna yit fekk ko fa kon ñu ngi am mbégte sëti Cheikh bu Mouhamed Kounta yi ñoo toog nii dinañ ci ñëw léegi waaye balaa ñoo def dala duñ def lu dul jox leen kàddu gi rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa neena mi ngi nuyu bokkam yi mu fi fekk teg nuyoo bi ci porte xalifa bi aki magam aki rakkam nuyoob Cheikh Mouhamadul Mountakha la cay teg bu jëm ci mbokkam mii di ko ziyaare ci bis bu tedd bii nu bokk muy bisub sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na mu di ci ànd moom te bu ko mënoon mooy ñëwal boppam moo tax mu wook moom Cheikh Abdou Samad sàkk loo ko délégation bii mu àndal nee na ni composé woo dafay mel ni yoonu murit moo ñëw ndax ñi ñëw mën nañoo wuutu ña ñëwul nee na ñoom ñaar ñii ko seq xam nañu li mu wax gënu leen a xam Tuuba mu ne fii nag moom di Njaasaan nee na day sunu kër moom mii toog nee na moom nday ma bokk baay te fii la dëkk ci Njaasaan nee na loolu mooy tegtale ne kon deret yi dafa jaxasoo démb tey soog a ñëw nee na ànd bi it rafet lool te yàgg lool nee na kon nag sëriñ bi gis nañu leen neen te mag dañ koy sakkanal nee na jërul ñuy déranger bi nee na ngeen fam nuyoo bi joxal na ko sëriñ bi nee na yéenay moom moo yéen ne ndegem gis nañ leen mel na ne gis nañu ko te xaw naa guddi mu ne ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te it yéen ngeen yàgg ànd moom ci liggéey bi te yàlla nangu liggéey bi ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nu bokk nee na mu ne daaw ba ren mi ngi fàttaliku sa waxtaan wi nee na gaa yi léeg rek ñu yónnee ko ko nee na sa waa ji daal moom moo xam mu ne sa waay daal mhm. ah, mu ne doo ñàkk doo am mu ne ko ko xam la <laughs> tabarkalla tabarkalla nee na loolu lépp rek lam lay wan mooy nit dana ne ca biir këram mu gën ko koo xam fuuf te wax ji firnde la ci nee ñooy nun nooy ñoom nee na fa tabarakallahu kon mi ngi nuyoo tey sant bu baax di ñaan gàmm giinu nu jëm luñ ci def sun boroom nangul nu ko te tasaare ci yiw yi ci jullit yëpp ndax ñëpp xañ nañ ci di ñaan at mu ne muy yokk ñu ci am ngërëmal yàlla kullu aamin wa antum bi xeyr wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu te bokk na ci teral gan jox ko mu lekk jox ko mu naan waaye teral gan bi ëpp solo ci teral gan mooy jox ko sa bopp mooy jox ko sa kanam jox ko sa xol mm-hmm. wax naa ko léegi ndax Cheikh Bassirou Mokhtar mii nga xam ne mi ngi ci biir mm-hmm. sànq bi ma Cheikh Sidi Lamine mii mm-hmm. woowee boobu moom mu ngi Tuubaa euh, yàlla dafa def moom ni ko sii di waxee mooy xattul istiwa di hamzatul wasli ndax euh, dafa yaayu fee bàyyu fii te matale ko daaw bi ñuy dem di ziyaare ci sëñ Muntaxa sëñ bi dafa ni ma ani doomi soxna ami ci ma ne ko maa nga fa mu ni lépp nangeen ko teg ci loxoom te jaar ci moom euh, ba ñu demee itam euh, wax naa ko sëriñ Muntaxa lépp lu sëriñ bi di dox mu jëm ci moom ci moom ñi lay jaare kon euh, bu ñëwoon rek moom rek teew day daal di matale sëkk waaye dafa ñëw ni ma man de euh, xam naa maa ngi Tuubaa nii mhm. euh, délégation sëñ Muntaxa bi mhm. ñi ngi ñëw waaye xam naa dinañ sonn nag mhm. wax ma itinéraire bi à peu près waaye ma ne ko yow baa di nga ñëw mun a ah, man de maa ngi woon Tuubaa man ko faw nga ñëw ndax faw nga ñëw mooy nit du weddi boppam ndax ñoom bu ñu ñëwee yaa leen war a dalal ndax euh, sëñ aboo mii sëñ Chouaïbou mi mhm. li ko fi ku baax ki di yónni yëpp ci ay xew-xew mhm. moom mii mhm. ci lay adressé wu ci ay yoon yu bari nag liñ ci jublu rek li may jublu ci leeral googu rek mooy luñ leen mën a terale ak lu ñu mën a wax ak wax ji lu mu rafet rafet rafet euh, nit ki nga xamante ne si ni teraangaam jógul ci yow te xaaru ci benn pay séentuwu ci itam benn retour kooku mënoo am payam ah, ndax ah, falaw an na mabkaaha bakaytu sababatan bi soda shafaytu nafsa qabla tanaddumi <laughs> laakan bakkat xablee fa hajjaleel bukaa bukaaha fa qultul fadla lil mutaqaddimi <laughs> eh, cheikh Muntaqa ci turu cheikh bu Sidi Moxtaaril Kunti yi mbokkam mi ñëpp ko war a ñaanal mu yàgg fi te incha allahu dana fi gën a yàgg ndax wa amma maa yanfau naas fa sa yamkus fi l ard lii judda bil baqaabi mulsuhaana man qad xalaw wa kazzaru l alqaam zillu rasulillahi qad aawaana mulsul amiru azhara l udwaana الذي ألنت من عاد ببلغ من كتابه هدانا لي رجل من ظلمني فلا وللتقمت منه يا مولانا مرد يلومانا جو أم solo waaye sëñ Abdou Samad jëkk a yëkkati ay kàddu kàddu yu mbokk kàddu yu bokk kàddu yu diine kàddu yoo xam ne lépp ci bëccëg yi nga xamante ak guddi yi nga xam kenn moom ko ku dul sama Seydina Muhammad Cheikh al Khalifa kon xam naa duñ la téye lii may ma seex eh, sa doom ji wooyee Baye Sidi ni te dañ doon sàkk bu ñu ñëwee nga ñaanal leen ma dinaa leen ko defal alhamdulilah rabbil alamin sama di la seedeel ni muy daaw di ren xar yi muy séddale muy séddale toujours daaw def na ko ren waxal ma ne ma xar bi gàtt gi sëñ Muntaxa di yónnee rayal leen ko ndeysaan ndeysaan loolu nag fonk nag ñu ngi sàkku sëñ bi nga ñaanal leen yàlla delloo leen ci yoonu jàmm ñaanal sëñ Muntaxa itam yàlla gën koo guddal fanam te may ko wér man naa li naanal Cheikhul Khadim yëpp yàlla mot li ko yow tam nga yàgg fi ànd koog moom rakkam jii tam seen ak sama ak rakkam yi mu àndal yëpp ñoo xam li ñu bëgg yàlla defal leen ko muy ngërëmal seen tubaab zillu rasulillahi qad awana mulzul amiru azharal qudwana الذي ألنت من عاد ببلغ من كتابه هدانا ليرد من ظلمني فلا وللتقمت منه يا مولانا مدم كوسي صافيا جزلانا وللأمين خلد الخذلان